ginnaaw ni yow bi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi kontaan nañ ci bu baax a baax abonnement yi ngeen yokki seen loxo Sadio Mané tey jii moom la ñuy ubbee li nga xam ne xibaar yi wala moom kese moo nekk li nga xam ne mooy suñ première information première dose boo xam ne ñu ngi leen koy jox tey jii ci Aladji Malick TV ndax démb kat dafa bokkaat ci li nga xam ne mooy sëmbaxloo bi nga xam ne moo doon am ampule ca Bayern sëmbaxloo boobee gaynde gi ñu seppi ko ca mu nekk gaynde goo xam ni am na ca solo lool ginnaaw ba nga xamee ni ah, dugal na ca bii boo xam ni bii boobu ah, bi ñu ko xaymaa mooy bii bi nga xam ni moo gën a rafet ba nga xamee ni saison bi commencé na léegi. benn coppati boo xam ni ah, ndànk la bu mu kàjji mu tëb li nga xam ne mooy gardien bi ni cabax ca biir caax ya nga xam ni moo nekkoon démb fële ca Allemagne mu nekk loo xam ni ginnaaw bi match bi jeexee moom gone gi. di gayndeek Sénégal gi bég na ci lool bég na tamit ci euh, performance bi nga xam ni euh, donte dikkul cent pour cent mais mi ngi koy yebbi benn par benn te it waxoon naa leen ko ci avant euh, bi muy am victoire bi ni leen Sadio Mané tépp tépp a gën ci moom yuréet tuuti coupe du monde ba boo xoolee lu mat ñett ba jàpp ñeenti match ngi yoo xam ne daanaka ñaa nga cay am ndam te match yëpp yu ci gën a bari moom gonek sénégalais gi am na ci la nga xam ni mooy ab bii kon tepp topp yooyee su ko toppee nii ah, daanaka dina doon taw boo xam ni boo wala ngaan lay doon wuti coupe du monde bi nga xam ni lépp lépp fi mu toll nii ah, ci wàllu dooleem ak performance am fa la ko war a denc ndax loolee am na solo bu baax a baax ci Sénégal ndax fukki million ak juróom nga xam ne ñoo koy daagaandu bëgg li nga xam ne mooy coupe du monde boo xam ne euh, bu historique la boo xam ne Afrique gi Sénégal rek moo ko fii sa coppati loolee am solo bu baax a baax loolee tamit ñëpp di ko xaar amaa ne euh, ngeen gis ko noonu mu nekk euh, ci li nga xam ni mooy bayar na ginnaaw ba nga xamee ni dugal na bit bi nga xam ni moo tax mu am lu toll ci juróom bii ci saison bii nga xam ni moom la yëkki loolee du doy ci gonek sénégalais gi moo tax it daanaka ma ngay jël la nga xam ni mooy mat yi benn par benn teyit ki nga xam ni mooy président am yebbi woon na lu jëm ci loolu ci ay kàddu danañ ci ñëw.